wax dëgg yàlla man sant naa yàlla bu baax ndax ah yàlla may na ma waali te xam naa ne yàlla jël na seen xol mu def ci waali atel en cinq man amatuma dara lu may di ko ñaanal moom mu yàgg ak yéen di leen bëggal mu yàgg ak musicien yi vraiment Wally jël na jox naa ko lengey Faramaren bëggoon naa nag kii waaye sama baat moo dee ndax fekk na rek comme mënuma ci ñàkk muccaat eh, ma leen di seereel ni doom ju baax la ci ma ma leen di seereel ni suba ba ngoon li muy wut mooy lu ma neex sama anniversaire bii passé xam naa nag micro bi moo am latence moo tax wax ji xaw a net dedd du ma waxee noonu. ngelaw ci ngelaw li la. daal ma leen di seedeel ne. billahi wallahi watallahi naa ci moom yàlla na ko yàlla suturaal. yàlla na ko yàlla yóbbu ca kaw a kaw a kaw a kaw